asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk mi yow mi bëgg a seetaan combat Jackson Junior ak ñaq jëriñu te nekk ci diaspora bi wala nga nekk Sénégal toppal tegtal yi ma lay won da nga ubbi sa navigateur Google Chrome nga dem ci site bii di seen affiche point com nga cliqué ci événement Jackson ak ñaq jëriñu bu fekkee ni combat boobu moo la intéressé ndax am na yeneen combat yu nekk ci biir sit bi boo ko bësee automatiquement di nga am ñaari option option bi nekk ci kaw nag mooy bu fekkee ni amuloo carte bancaire nga bëgg a fayee Wave Orange Money wala Free Money en général daal nag waa Sénégal ñoo koy utiliser wala bu fekkee ni itamit carte bancaire nga bëgg a jëndee da ngay bës achat ou connection boobu léegi nag pour yéen ñi bëgg a fay ak seen carte bancaire ci kanam tuuti ci biir vidéo bi dinañ leen ci indil ay leeral mais nag ñu tàmbali ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo war a fay ak Orange Money Wave wala Free Money léegi ñu dugg foofu gis nga ni bindal nañu la payer avec Wave payer avec Orange Money léegi nañu jël exemple Orange Money bi gis nga boo ci duggee dafay lay indil prix combat bi boo ko confirmé ba pare daf la yóbbu directement ci application Orange Money bi nga confirmé waat foofu noonu dugal sa mot de passe automatiquement dina la wax ni paiement bi accepté nañu ko ba pare yónnee la nag sa confirmation wu code message boobu nga jot nag te seen affiche yónnee la ko mooy confirmer achat wu pay per view combat Jackson Junior ak ñaq jëriñu termine avec succès daf lay jox lien bi nga ko mën a seetaanee ba noppi jox la email bi nga war a dugal ak mot de léegi nag damay copier email page u seen affiche point com bi ma jógee woon ngir jënd daal di cliqué waat ci événement wu Jackson ak ñàkk jëriñu directement nag damay bës achat ou connexion email boobu ma copié woon laay collé delluwaat ci message bi delluwaat mot de passe bi copié ko collé waat ko ci place mot de passe boobu automatiquement nag da ngay connecté wu ci combat Jackson ak ñàkk jëriñu bu la neexee ma bës play gis ngeen vidéo baa ngi noonu ngeen di seen Jackson ak ñàkk jëriñu gis ngeen ko noonu lii nag mooy pour ñi bëgg a seetaan te nekk biir Sénégal même bu fekkee ni itamit da ngaa bëgg a seetaan te amuloo carte bancaire nekk bitim réew mën ngaa wax kenn ci waa Sénégal yi ñu jëndal lu ko daal di la yónnee message boobu nga xamante ne ni moom la ñu jot fii waaye nag na jàpp ni benn nit dong moo ci mën a seetaan bu ci keneen connecté woo ci saa si yow daf daal di déconnecté dama leen newoon ñiy fay Wave Orange Money wala Free Money ñoom ñooy choisir première option bi pour ñiy fay ak seen carte bancaire dañuy bës directement ci achat ou connexion bu fekkee ni musoon ngeen connecté wu ci seen affiche point com da ngeen di dugal seen mail ak seen mot de passe wa ilaa bu fekkee ni musu leen nag da di créer compte da ngay dugal sa email confirmer waat sa email nga xool ko nag bu baax a baax ndax mën naa am ay erreur wala mu am ay réclamation bu ko defee ñu mën a xoolaat baax a baax email nga dugal sa mot de passe confirmer waat ko bu baax après nga bës ci accepter les conditions édition nga daal di inscrire nag bu boobaa nag li ciy des du lenn lu dul fay fay rek a ciy des gis ngeen ko noonu connecté wu naa ak sama mail daf may laaj nag sama carte bancaire damay dugal léegi tur ak sant bi nekk sama carte bancaire numéro carte bancaire bi date d'expiration carte bancaire bi ak trois chiffres yooyu nga xamante ne ni moom mooy CVC wu carte bancaire bi bés ci bouton wu payer